billaahi gis nga Badara hmm. man fu mu nekk nii dama joom bi ñun ñëpp a joom nga corona bu mu ñëwee ba léegi waaw barki démb damaa dajeeg eh, gisee hmm. mu naan ma hôpital fu mu nekk nii consultation sax amatul dañoo ñëwatul amatul dañuy am góom sax di ko nëbb góom. <laughs> dañ koy nëbb ndax dañuy bañ ne leen dañoo corona. Ah, waaye tamit nag feebar bi war naa gaaw génn. war naa gaaw génn ko gaaw génn ndax fu mu nekk nii maa ngi calculer man su ma paree fan laa war a jëlee dépense. feebar gi di doomaraam. man kay jaaxal na ma kolosaar booy wër korosaan dëgg. bu mag ak ngoog mooy coronavirus. Mhm. waaye fu mu nekk nii. Mhm. dañoo bayatul dundee. wax nga dëgg. xam ma ba xam yéen ngi am njàngat boobu wala amu leen njàngat boobu. waaye yow loolu dëgg la sax. ndax jooju ndax boo seetloo ba ci biir. Hmm. xam nga Macky Sall ne ne ne ku nekk na nga toog kër ku nekk toog sa dëkk. waaw waaye fu mu nekk nii loola boo moytul dina jur musiba. musiba naaru laay lay jur sax. fu mu nekk nii dundi gu doon jóge Europe. Hmm. bitim réew du ñëw mënta ñëw. tale nañ ko. waaw te sunu baykat yi fii ay jàmbaar lañ. jàmbaar dëgg dëgg ndax bay nañoo bay bay bay ba am lépp. bay ceeb bay dugub. waaye dañoo amul lu ko mën a indi. loolay wax ji nag xoola mooli xam nga moo li bu ñu doon napp yéeg si gaal gi nañ war a mat téeméeri personne waaye léegi dañ kaa wàññi ndax léegi lépp am am amatul fu mu nekk nii loolu métti na ma de fu nekk nii jën gu baax sax doo ko gis billaay loolu métti na ma ah, corona mii nañ ci wax de fan yii keccax gi rek laay dundee sax keccax gi léegi mu jeex léeg léegi mu jeex parce que ay nit a mhm. te mbooloo la ñoom daal mbooloo la ñuy bañ mbool te mboolooy doole nag mboolooy doole mboolooy doole mhm. ak ay dëgg mboolooy doole mhm. waaye nag lii ngénteem la am dëj <laughs> kon yii mi ngi am ci corona gi. ah jar na ko di yii mooy faj corona gi di xanaa xamoo bu doon ñëpp di mel mel nii corona léegi mu jeex ci bi man gox ni muy doxee moo cagawe. te fu mu nekk nii dañuy dañuy dañuy wane concours nàq xam nga concours mm. seen kii dañuy jël rek tóoj ko ba mu tegu fii lépp di marqué nag waaye fu mu nekk nii man damaa jommi jommi naa. <laughs> <laughs> xoolal ma yii rek.

ah ñu ngi si jàmm na boo demee rek nuyul ma sa yaay amul benn problème waaw ak daa mel ni réseau bi daa daa daa doxut ah, eddi nag war naa ñoo ñëw war na ñoo ñëw fu mu nekk nii jaaxle naa jaaxle naa jàkk naa ah damaa jaaxle jàkk ndax sunu mbedd mee ne guddi gi pot lampe bi dadul tàkk waaw te couvre-feu bi lu ne mën na cee xew waaw man loolu yëpp war nañu ko wax ñu ngi nii mënuñoo dem fenn mënuñoo dem mënuñoo dikk saa bu ñu xëyee toog ci grand place bi ah, jumaa jee ma doon noddu sax léegi dañ koo far tëj noddatuma nan la ñuy demee dikk nan ah moo ma moo ma jaaxal moo ma jaaxal yow yow yow yow yow foo demoon lu baax rek lay gis nan nan la ñuy demee boobu ba léegi maa ngi lay wër yónnee naa ndaw sa kër neewoo fa maa ngi nii ah mais mais boo nit boo bu ñu waxantee lu baax da ngay teel a ñëw. Hmm. bu ñu waxantee lu baax da ngay teel a ñëw. loolooy dëgg waxi caaxaan. waaye gis nga fa ah. ma nekkoon ku fa nekkoon tamit gis lu baax. Ah. man sama kër coow laa fa jëlee dépasse amatuma ko. ndax coronavirus. déglu coronavirus yàlla na dee si laqum xorom. déglu ma waxuma coronavirus waaye démb sa jëfi baadool la ji nga def. maag yow la nag yow yow nag man lan laa def yow nag lan laa def yow mi toj fi sama portable ngi ni ma sa loolu ma wuyoo man maa toj sa portable yow la moo tax ma toj sa portable la nga gis teg loolu laa gis la ñu gis la waaye loolu amul solo loolu amul solo comme kaaw corona yooyu nga doon wax hmm. fu mu nekk nii xam nga leen jugeetul bitim réew ñëw te sama doom jëmi nga bitim réew te fu mu nekk nii woote bi sax man maa man su ma ko woowul du ma woo ah taxaw yow sa doom réew ma nga bitim réew de alamu a ah, mun nga bitim réew mais fu mu nekk dama kaa mënta jot waaw waaw waa distance ak alamu dama kaa mënta jot mënoo kaa jot dama kaa xanaa xamoo wax téléphone nit ak nit mu nekk bitim réew wàll na la coronavirus kon moom <laughs> moo tax nga may esquive di pousse nii ah, a daa daa wóorul moo tax nga may esquive di pousse yow yaw yow yow xam nga man bu ma corona woon corona nga bu yàgg mu doon allo allo moo koy jot dëkk bi ñëpp dee nañ chekër am na luy wàcc luy wàcc am na oto daal bu fa gaare lu oto man damaa amul gan dëkk bii na ñëpp toog seen kër resté chez vous xanaa dañ koo déggut kee ma gis de sa dooma sa dooma waaye sama doom ñeenti fan ci tey déggu ma wax nga naan ma sama doom sa dooma laa la wax ay am nga virus de ñëw na kay xanaa du ñemewul nekk mët mi mooma mi ngi nee ngaa jug. Ah, man kat demoon ba xam yor na jàngoro ji wala yoru ko. wax nga eh eh eh bul bul dugg de taxawal bul eh, dugg. Eh eh, eh eh eh eh eh. yow foo jaar. da ngay taw bul ñëw bul ñëw. bul ñëw bul bul ñëw bul ñëw. fatal sa bakkan. <laughs> bul ñëw bul ñëw. xaaral rek. bul laaj sa yaay tey lépp maa ko jël en charge bul laaj sa mi ñëwal mi eh te dama tawal rek eh damay ñuuf sa eh. puusal puusal yow ay papa. papa xanaa gën a. yow di nga at sa. xëy na dama de xëy na dama ne ay puusal de puusal ah, bul laal buntu bi fenn ah, yow Macky Sall tëj ku yor sauvage man maay sauvage naa la woon sauvage bi muy mel yow Macky Sall tëj na asamaan si tëj suuf si yow foo jaar anti bul xoolal fii sax <laughs> ah, rek na dox de. na du dox. ay papa yow eh dama lay ñuus de. boo jur na may ñuus sa baay. yow ay ay papa xanaa ki du sa doom. nga xam ne samay proposition bopp laa fi jël cent quarante. ñëw doxal doxal doxal. ay yow mën nga ñu sa papa ay ay papa ay ay ay papa ay papa. damay ñuus sa baay de jaaral nii. ca wane ba gauche tourne à gauche. ca wane na jàdd. quarante. kii kii da koy santen sax. ay ay président. Eh! yowee. Eh! koofure ko koofure ko. doxal stop moytul miir bi nag bu laal miir bi fenn. bu laal fenn de. du laal doxal doxal doxal ma yëkkatil saako. dañuy kay kay woo ma numéro kii rek. kii dañuy 40 bu dee dañoo yor xaalis fu leen jaar naa ci xam dara yor xaalis rek Macky Sall tëj na suuf si tëj kaw gi. tëj ndox mi ngeen yor xaalis rek fu nekk ngeen jaar fa di fay di bëcc frontière yi xarit xarit doxal sa baay ba dara portable bi indil ma ma woo waa sami léegi quarantaine waaye jox lii jox ma téléphone <laughs> oh, numéro bi laanati la 15 15 15 na xam ne allo waaw waaw waaw waa sami waaw bonjour bonjour Euh, euh, euh, ki qui il y avait un cas importé qui qui revenait de Paris. waaw. oui oui. à xaar yàlla mosquée jumaa ja. tout il il il faut que vous arriviez tout de suite de. sinon cas suspect danger. il y a non ah c'est bon je vous attendais kon y a pas de souci mais faire vite de. bu ñu woo souci de ñoom nañ ñëw. kan. waa baax na je vous attends avec avec d'honneur t'inquiète t'inquiète baax na léegi di nga xam ne nekkoo dooméraam sax da ngaa yor alal fu la neex jaar leen rek sa bàyyi la gën a doon dooméraam <laughs> nga xam ne